Cette situation nous préoccupe euh, au premier chef. Nous avons vu euh, sur toute la côte pratiquement les jeunes euh, aller à l'immigration en risquant leur vie. Certains disent que c'est par manque d'espoir, d'autres disent qu'ils sont attirés par l'air d'Adoro, ce qui n'est pas le cas, parce que l'Europe aujourd'hui a les mêmes difficultés que nos pays euh, sous-développés. Donc il y a d'abord un travail de communication. Euh, les parents devront également prendre les responsabilités pour bien expliquer aux jeunes que les responsables politiques, que les organes euh, de l'État qui ont en charge l'emploi des jeunes puissent changer de, stratégie pour un peu rassurer ces jeunes. Parce que les risques qu'ils sont en train de prendre constituent véritablement un fléau Et ce fléau nous interpelle tous en tant qu'acteurs politiques, en tant que père. waaw euh, en tant que jëw euh, waajur mooy euh, di naqarlu ndax semaine bu nekk ñu ni téeméeri nit juróom-benn fukki des nañu ci àll bi loolu nag war nañ yee ñee xale yi li leen nammeroon bu njëkk melatu dem yombul te dem àgg sax taxul nga tekki te mel na ni Sénégal nag wax dëgg yàlla yaakaar nga fi am. noo ngi am pétrole noo ngi am gaz noo ngi xalaat euh, li ñuy tuddee suffisance di bay di dundee dekkalaat àll bi yaakaar naa ne xale yi li ñuy sonn dem Espagne di ko daj ci tool yi coono boobu buñ ko defee fii Sénégal daañu tekki kon vraiment noo ngi euh, ñaan les autorités ñi nga xëy yore politique emploi état ñu xoolaat seen stratégie maanaam seen i doxalin gën a euh, fexe ba ndaw yi bañ a ñàkk yaakaar. parce que defe ni boo nekkee Sénégal rek tant que demoo Europe do am dara te gis nañu ñoo nekkoon fi tàmbali ci lu tuuti bokoy sét ñi fi gëna a tekki sax bokoy sét seet sori seen jang taxu koo sori waaye euh, loolu yépp ci gis-gis la am te yaakaar naa ni inshallah li xew gouvernement dina ci jakk dina ci jangat fexé ba vraiment ñu arrêté euh, immigration bi xalé yi ci wat seen xel